senior member of Operation 3 Years Jatna has revealed that Inspector General of Police Mahmoud Job, Minister of Interior Yankuba Sonko, Minister of Information Ibrahim Asila, among others, assisted that the movement application process that was approved to hold a peaceful protest on 16 December 2019. Karamo Jadama speaking in a leaked audio discourse disclosed that his movement has agreed to hold a peaceful protest from, a, from Sting Corner to Denton Bridge after, a consider, after considering all security threats that criminals, unwanted you know, elements may capitalize on the situation. The movement is calling on Gambian President Adama Barrow to honor his 2016 campaign promise that once elected, he will rule for the country for three years organize free and fair election and hand over power. Ah, <laughs> interesting times in Gambia. Really? IGP, um, Interior Minister, and of course, uh, Information Minister, Um, ñoo ne ñoom approve um, application bi ñoom process the three years jot movement like asking they are behind it. waaw waaw of course ne lii lañ doon xaar ci ñoom tey bu fekkee ministre yi ki yore euh, intérieur mhm. moom li ko nekkal mooy biit réew mi ak kaaraange doomu aadama yi mhm. Euh, inspecteur euh, IGP moom moo yore police yi ak lépp lu jëm ci seen doxalin spokesperson nguur gi moom moo yore kàddu nguur gi ministre of communication tamit lépp lu jëm ci nit ñi li ñuy dégg ci xibaar ak liy génn ci li nga xam ne mooy nguur gi tam am na ci cër ñooñu buñ toogee waxtaan ak ndaw yi nga xam ne ñoom ñooy trouyees jot na xool naka la ñuy def pour jàmm am ci biir réew mi ndax ñii lu ñuy laaj loi ak seen àq ak yelleef moo leen ko may ndax réew ne doomu réew mu nekk am nga àq ak yelleef pour mun a def peaceful demonstration bu fekkee loolu dafa am te ñoom fañ sukkandeku seen kàddu mooy ne diggee la yu coalition bi defoon njiit réew mi ki fi nekk mooy président aadama Barrow bokkoon na ci stakeholder yi nga xam ne ñoom ñoo jiite woon taxawaay boobu moom la ñu sampoon as a candidate mu campagne wane ne years lay tok, bu paré mu dello li nga xamné mom mo nek lengue yi delu wat ci liggéeyam ndax mom businessman la ak comme ñom niñ ko waxe ak yu jëm ci yoyu waye dem nañ ba gis ci biir taxaway bi ginaaw bu mu togué li gëna fess ci liñ gis moy rally bi amone fa nga xamné moy birkama kérok la woné né mom 2021 lay dem election, mbeur mu ñëmé ñëwal nga samp sa ngemb ngeen dem jongante depuis lolu am ba tay gis nañ ne loola mooy gëm-gëm bu mu wone ak yeneen yi nga xam ne déggee nañ ko ci ba ñoom ñi jàpp ne kii firndey kàddu yam waxoon ci ba muy uut ak tey doxalinam wuute na loolu moo tax ñi gis tries bi ñoom tamit ñiy fipp di wane ne foog ñi wonee ne àq ak yelleefu liñ leen diggoon lu ñu war a def la ba jàpp nañ ne liñ ci xaar mooy altine comme ñii dox nañ ci diggante bi ba jàmm mu ngi am dégg nañ ne altine lay proteste bi di am fi mu war a amee ba fa mu war a am ak yu jëm ci yooyu yëpp xam nañ ne li ñu ci war ñin en tant que ay taskatu xibaar dinañ ko def ba delloowaat askan wi ñoom liñ doon xaar ci ñi nga xam ne ñooy tries bi waaye man li ma jàpp rek mooy jëwriñ yi li liñ def mooy li leen war mooy ministre si waaw ah man um, Amadou jaama dafa nekk loo xam ne dafa am solo torop te man daal dama kontaan gaa ñu ngi wax ne you dañoo conduct a peaceful protest te ñoom nekkañ na sa um, taramoo sax mu ngi wax ne dañoo conduct a peaceful protest because am na ñoo xam ne yeneen criminals yi mun nañoo dugga si biir ñoo xam ne yaaxa rek moo nekk um, gaay seen business bi so naka nga gisee loolu noonu because gaa ñu ngi actually fu mu nekka ni moom mu ngee wax ne oote jaama te am naa daal rek am solo fii waaw um, waaw jàmm moom foog naa ne wax nañ ko waxati ko euh, si la lépp xëcc waaye li la xam nga lii la moo tax sax mu am solo ministre yi jàpp ci ak interior ministre ak IGP pour ñu def ko in a very peaceful maanaam mooy coow li dafa bëri leen lu ci lu ci coow li bari lu bari leen dem tamit si xeli nit ñi ndax problème dina am ndax du am ñu bari ñu ngi laa wax ne sax bagage yu bari manke nañ ci dëkk because uh, mm, am na ñi nga am dañ tiit pour indi seen bagage problème ñu am gis nañ information yu dem ci social media bi ay document ñu ko gënë génne bëgg def xam nga yoy yeb ya, bu am fokk rek tamit nguur gi taxaw ci def ci jangat ñu xam naka lañ ko doxale ya. uh, after all am nañ consensus be nangu toona léegi ne lañ jox pamit mm. wa fuñ koy ya, defee nak moy affaire bi sting corner ba dentin bridge ñu bari ñu ngi jappané fofu ci la nit booy démonstrer bu gaaw joxe xibaar nga def ko ci àll bi xaw ma ñun ngay waxal. Ah, loolu tamit beneen affaire la. waaw so because suñ jàppee ne ñoom peaceful mm. protest la. Mm. protest yi ñoo gis ñu nekk peaceful. Mm. war nañ ko mun a def si biir dëkk bi. nit ñi dégg lu ñoo wax ak tamit. Ah, nga kilifaay ñëw déglu leen waaye bi ñu ko yóbbee si àll bi bu fa kenn nekk loolu tamit nag ñu bari ñu ngee jàppare daal leneen la gos ku nekk am na ñu ngi ko gisee ndax dem fa est-ce na ndax foofu alal la eh, kenn nekku yooyu waaye tamit jàmm daal moom moo génn fiñ ko a defee foog naa man Amadou foofu man man mun na faa wuteeg yow gis-gis non nekkul man ma gis-gis laa waaw waaw loolu laa mooy gis-gis sax gis-gisu ñeneen ñi sax mooy li tax man ma jàpp ne ñoom li ñu wax mooy mm. from the group to the chairman to the last person ñoom message lañ bëgg a ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ak li nga xam ne dige woon nañ ko ndax kaddu la yuy jógoon ci ñoom ak MOU bi nga xam ne wax nañ ne coalition bi ñoo ko defoon ak yu jëm ci yooyu waaye the most important thing in this situation mooy ñoom liñ bëgg mooy message bi askan wi nañ ko jot ñi xam ne outright ne ñii ñoo dige woon lii jot na pour ñu fàttali leen seen dige ndax ñu toog nañ fi ak ceemaan bi Mr Ndiaye moom ci boppam loolu la doon gaaral ne tey dañ war a am kilifa yu nga xam ne dañu leen war a gëmloo ne lépp luñ diggee démb luñ leen war a fàttali la ngir ñu jëfee ko. ok wax nga ko diggante Stine Kona ba 20 meters to Denton Bridge lañ dégg bu fekkee loolu la li ci am solo mooy. media bi information bu ñuy jël pour ëllëg ñi dégtal ko askan wi ministre yi nga xam ne ñoom ñoo nangutoo ak 3 jot na toog waxtaan lu ëpp 3 hours ngir lépp lu jëm ci ñi seen àq ak yelleef ñi def ko ñooñu tamit nañ jël seen responsabilité bi message bi ñiy bëgg a yeggee ñi yeggee leen ko ñoom ñi nga xam ne ñooy autorité si ñi xam outright ne ñii lii moo leen taxoon a jóg man that is the point bu ma gëm ne moom moo tax ñoom tam ñi accept ne being ministry of communication being ministry of communication being di spokesperson being di IGP mun nañ leen a provide sécurité bu nga xam ne ñoom ñooy dem yore ñii war a dem protest mm. lépp lu ñu war a def ñi def ko peacefully bu ñuy lekk ñi lekk ba suur bu ñuy naan ñi naan ba màndi bu ñuy wax lépp lu nga xam ne mooy tax a jóg protest bi wala mouvement bi ñu jàllale ko ba talaata ku yeewu ci biir réew mi nga xam ne mo moo jog a jóg jot na yeah so because uh, gis nañ ne fii uh, case biir ka seen protest bi yeb yëpp tegoon uh, fogoñ ne woon dina toon violent waaye at the end of the day ñene yi dañ gaz lii um, tia gas yi daf dee fekk ñi seen kër yi sax mm-hmm. xam nga moo nekk loo xam ne dafa doy waa dafa people like me I was a victim mm-hmm. so lu ñu war a sóoraale moo nekk ne ñoom security officials xam nañ lan moo fa nekk so any peaceful protest can turn to violence foog naa loolu lañ fa sooraale. waaw loolu la lépp ñu move on amul problème waaye nag <laughs> jàngat yeeg gis-gis yi dañ ci uute waaye li ci gën a am solo daal nañ ko defee ci jàmm. jàmm ok te te jàmm euh, jooju nga wax sax boo xoolee tey man gis naa ñu bëri ñu nga xam ne ñu ngi wax ne am na semestre yu waroon a ñëw waaye li tax ñëwuñ mooy seen xel moo tey ci ah, three years waaye comme on the 16 la ba xëj na ñu bëri dinañ ñëw ñëw def li nga xam ne mooy seen celebration yi mm. Christmas comme ni ñu ko tàmm di defee te gis nañ ne Europe jamono bi sedd na gars yi bëgg nañoo ñëw seet si seen njaboot yi te semestre yi saa yi ñu fi ñëwee dañuy yokk koom-koom